jërëjëf mbokk yi ñu seetaan ci wasaare làmb mbokk yi nuyooti nañ leen bu baax a baax a baax am kontaan ak mbégte euh, comme niñ koy defee saa su ne di leen jaajëfalaat bu baax a baax a baax a baax ci ànd bu rafet bi nga xamante ni ànd ngeen ko wasaare làmb di nuyu képp fu waay mën a nekk ci àdduna rek di la jox loxo di la baalu àq tey di la baal di ñaan suñu borom mi xamante ni moom jéggal yàlla na suñu borom boole jéggal may siyaarawaat ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp. mbokk yi démb dégg ngeen li nga xamante ne jot nañ ko waxtaan ci carrière ki nga xamante ne mooy Lac de Guiers numéro 2 waxtaan ci saison bëre dóor ñaata promoteur ñoo ci tëgg ci cinq mois yi waxtaan ci ku ci nekk ñu xool li nga xamante ni loolu lañ jàpp ne lépp moo mën a yokk làmb ngir ñu waxtaanee ci waxtaan nañ ci bërki démb tey nag dañu bëggoon waxtaan ci leneen loo xamante ni mooy lutte traditionnelle bëre simple nga xamante ni balaa ngay dugg ci bëre dóor bi dangay dugg ci bëre simple bi def ci liggéey boo xamante ni liggéey bu mucc ayib la ba ñëpp xam la wala say mbokk njagañaale ne la ah yow kat li ngay def ci bëre simple bi boo duggoon ci bëre dóor bi di nga am lu kawe sa njort nga ànd ak say mbokk dugg si ci bëre dóor bi bëre dóor bi nag daanaka mën nañu wax ni liñ doon tiit ci saison bi yëpp jeex na parce que combat yi mag yi yaakaaroon ni du taxaw yëpp promoteur yi mag yi taxawal nañ ko wax na waxtaan nañ ci démb wax nañ ci waxati ci muy combat yi nga xamante ni jàpp nañ ay combat espoir la euh, jàpp nañu tamit combat yu mag a mag yi euh, ba ci ba ci combat euh, ki nga xamante ni mooy roi des arènes bi sax am na combat kon Sénégal fi mu toll ni daanaka mën naa ne bëre door bi ñi njoortoon ñëpp ni seen combat dina metti wala dina am ay jafe-jafe ñoom ñëpp am nañ combat léegi nag bëre simple bi fan la jëm. mbokk yi ci loolu lañ bëgg ñu waxtaan ci tuuti bëre simple euh, dafa doon loo xamante ni promoteurs yi dañuy dagg licence ànd ci di liggéey ñoom promoteurs yëpp ku ci nekk liggéey bi daanaka mën naa ne liggéey bëre simple kumpa la parce que boo daggee licence ñëw ci fu mel ni Adrien Senghor wala gaal gi da ngay ñëw louer say louer stade bi euh, louer siège louer basse ba pare def ko ticket teg mise mise boobu ngay teg xamoo sax ba xam. mbër yi buñ dugg see euh, li nga tegoon amateur yi bu ñëwee dinañ la ko fay wala déet mooy doon liggéey boo xamante ne liggéeyu kumpa te ñoo ñu dagg nañ licence licence boobu ñu dagg saison bi euh, daanaka mën nañ ni feebar bi moo tax activité yu bari dagg léegi ana promoteur yooyu nan la ñuy def ak seen licence soit CNG bi dañ leen di dañ leen di dañ leen di bàyyiwaat ñu continuer euh, saison bi bu ñëwee ñu yokkal leen seen seen licence wala boog dañuy joxewaat koom-koom ngir mën a amaat beneen licence parce que saison boo gis rek licence bi day doon saison deux mille dix neuf deux mille vingt bu dee ñu ngi ci deux mille vingt euh, bu buy waaj a jeex bu saison bi di waaj a tëj boo amaatee licence day nekk deux mille vingt deux mille vingt et un parce que licence yi noonu la dem parce que saison bi day fekk si ci ñaari at yi léegi nag looloo taxoon ñu bëgg a waxtaan parce que ku ci mel ni. Euh, borom Djilass production nga xamante ni tëgg na ay journée yu am solo euh, fële ci terrain gaal gi ak Adrien Senghor suñu papa Jax moom it tëgg na ci làmb yoo xam ne mise bu ñu yaakaarul woon ni kenn dina ko teg ci bëre simple moom moo ko fi tegoon muy 10 millions arène nationale keroog macha allah képp kuy amateuru làmb parce que mën naa ne bëre simple ay amateur ñoo fay ñëw ñoo xamante ni dañuy dund làmb bu ñuy ñëw boo leen gisee ñuy dugg si da ngay xam ni ndeysaan ñii làmb rek moo leen yitteel faraluñu benn mbër na ngay ñëw dugg si ñoo xam ne kii mbër la macha allah bu dugg see mu neex comme am nañ ci ñoo xamante ko ci mel ni Cheikh Tidiane Niang Cheikh Tidiane Niang bu dugg see ci bëre simple fu waaye nekk ci amateur yi da gis ñu jub taxaw yuuxu nga xam ni dañ ko namm ci làmb xale la boo xamante ni macha allah Cheikh Tidiane Niang yorul gabarit comme yi mbër yi yor yorul taay boobu mais kum ci bëreel danga koy jox cër bi mu moom. ku ci mel ni euh, franc franc tamit bu dugg see ci làmb ji noonu lay demee bu dugg see ñëpp yuuxu xam ne macha allah dugg si na mais mu ngi ciy def wàllu mucc ayib ku ci mel ni euh, biram kunkung biram kunkung moom it noonu la mel moom it bu dugg see ci làmb ndeysaan lu ci baree bari da ngay xam ni carrément xale yi ñu ngi ci wàll woo xamante ne ñu ngi ciy bay seen waar bu ñëwul woon ci bëre dóor bi sax bëre simple bi dañ ci am lu baree bare ku mel ni Boy Faye ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen Obali oh ku lim juum wala ku doo juum da dul matal léegi nag ñooñu noonu ana tey fan la fan la leen seen bi teg ana amateuru làmb yi lan ban conseil liñ leen di jox ñoom promoteur yooyu nga xam ne dañoo daggoon seen licence jàppoon seen journée amoon ay date jël seen i datu bopp stade ba sax daanaka mën nañ ni joxoon nañ fa seen xaalis mu tëdd fa léegi ñooñu ban ban ban doxalin la stade bi di dox ak ñoom ban doxalin la CNG bi di dox ak ñoom ñoom ban doxalin la ñuy doxalin ak mbëru làmb yi parce que mbër yi tamit dafay am mbër yoo xam ne am na ci mbër bu mag bu ma doon waxtaanal bërki démb mu xamal ma ne ñun tàmmoon nañ compétition bi surtout waaye gàtt gàtt chaque wala dimanche yàlla dinañu baaxee lu mu néew néew néew ñu am cinq cent mille wala un million buñ demee ba gisatuñu loolu nan la ñuy def xam ne nag. Euh, xëy na feebar bi moo tax affaire yu bare bare bare arrêté ku ci nekk rek da ngay mujjee gëm yàlla suñu borom xam ne yàlla lu mu def rek noonu la léegi nag ñi nga xamante ni ñoom ñoo ŋànk bëre simple war nañoo gisee gise bi toog daje waxtaan bind yóbbu ci CNG bi ñu xool ñoom nan lañ leen ni protéger parce que tamit bëre dóor bi ñu ngi dem waaye bëre simple bi tamit war nañoo mën a def jéego bu am solo boo xamante ne dañuy yéeg jëm ci kaw ndax yaakaar naa ni ñaari amateurs yi duñu benn bëri dóor képp ku fa ñëw daanaka mun naa ne supporter nga wala fans club mais bëre simple ñu fay ñëw d'habitude ñu baree bare bari ay amateuru làmb lañ ñoom làmb rek moo leen yitteel dimanche bu jot lépp lu ñu mënti def dañ koy bàyyi dem ci bëre simple toog gise daje boobu gise boobu daje boobu ci làmb dafay am solo bu baax a baax a baax parce que fi mu toll nii promoteur bëre dóor yi créer nañ seen association bopp ñoom ñu ngi daje ñu ngi waxtaan ku ci nekk ñu ngi xool bëre door bi fan lañ ko mën a yegg yóbbu ba mu yegg ca kanam da ngay gis benn promoteur tëgg làmb ku mel ni jam production xale la boo xamante ni mu ngi ci làmb ji di def liggéey bu mucc ayib da ngay gis mu tëgg làmb ku mel ni Fallou Ndiaye ñëw jàpp ci Assane Ndiaye ñëw jàpp ci Euh, euh, Kandji production gars yi yëpp àndandoo ñoom promoteurs yi jàpp jàppalante ci seen biir bu ko keneen amaatee ñu defee ko noonu bëre simple yi tamit da nga gis loolu parce que tey euh, góor production bu organisé da ngay gis ay jilaas ñëw gars yëpp ñëw ànd ak moom jàppale ko ci bisam boobu léegi nag lan moom loolu lan lañu war a mën a def ba bëre boobu bëre simple boobu tey fi mu toll nii ñu mun ko yóbbu fu kawe kawe kawe ci làmb mooy am na ci yoo xamante ne dafa yàq li yàq mooy dangay gis benn promoteur boo xamante ni dafay tëgg fu mel ni Adrien Senghor tëgg fa benn dimanche parce que d'habitude bu kii tëggee Adrien Senghor kii day tëgg gaal gi làmb yi dafay jegante làmb simple mais léegi da ngay gis promoteur bu tëgg Adrien Senghor mu jaral la nga fay gaal gi pour jour boobu joxe fa sa caution bàyyi ko fa te stade boobu sax alors que doo ko soxla mais li ngay bañ mooy beneen promoteur tëgg fa ngir euh, amateurs yi bu ñëwee ñiy dem fii ñiy dem fee li nga bëgg ci sa làmb doo ko am léegi loolu da nga koy gis ci làmb simple yi te bokkul luy defar pour man wolof daf ni euh, ñi bokk teen ñooy laxasooy goj mais loolu yëpp bu ñu gisante woon waxtaan ci seen biir loolu amaana mën na ñàkk mën na bañ a xew ñu gisante dimanche Euh, promoteur yi jël samedi bu jotee promoteur yi jël kii tëgg samedi kii tëgg dimanche amateurs yi dañuy wuy si parce que làmb moom am na ci ñoo xamante ne dañuy ñëw ci bëre simple bi mais dañuy taxaw yor seen xaalis taxaw mais li ñuy bëgg mooy yenn mbër yi ñuy séentu ci làmb ji bu ñu dugg see ñu xam ne tey compétition bi dina neex dañuy taxaw ci porte bi xaar booy fay dugg si xaar jékki-jékki biram kunkung dugg si ñu jékki-jékki gis fils de bat leen dugg si yeneen xale yooyu ah, tas yaakaar ñooñu ñooñu bu ñu dugg see nga xam ni ah tey nag wax dëgg suma daggee ticket dinaa màndi làmb ndax général Malika fu mu nekk euh, Obali ne fa euh, nu mu tudd Oninga ne fa nga xamante ne xale yi fi mu toll ni aada booy bawal da xam ni fi mu toll ni tey su ma duggee dinaa doyal làmb te làmb suñu sport la boo xamante ni dañ ko bëgg mais mbokki amateurs yi képp kuy dund làmb demal di seetaane lutte traditionnelle di nga fa gis cosaan di nga fa gis aada di fa gis bàkk di nga fa gis loo xamante ni doo ko amee fenn fuddul foofu plus de cent cinquante mbër dañ fay daje coow du am xeex du am histoire du am ba benn nit mooy mujjee jël final ba ñoom ñëpp ñu àndaat bokk ci benn porte bu ñuy duggee ñoom ñooñu ñooy bokk ci même porte bi ñuy génnee te coow du am dara du am. loolu kon waa bëre dóor bi tamit war nañ ci bàyyi xel xëy na nag xam naa li nekk lee nekk bëre simple li nekk bëre dóor xëy na dóor bi mooy tax violence yu bari di am mais yooyu yëpp lu mat a bàyyi xel la ñu ñu xool luñ ko mën a defaraatee parce que làmb fi mu toll nii. mbokk yi ñu ngi tas nii ñu ngi jaar fee ñii ñu ngi jaar fee mbër yi tey da ngay dégg mbër xas promoteur promoteur xas mbër mbër xas reporter reporter tontu mbër loolu yëpp bokkul ci loo xamante ne day defar làmb te chaque fois doo dégg waa football doo dégg waa handball doo déglu waa waa rij bi mais làmb rek ngay dégg xëy na nag wolof def na ku bindoon ni tama ñu tëggee la ñaari boor làmb moo bindoon ni tama moo tax fi mu toll nii ñu ci bëree baree baree baree bëri dafay am étiquette boo xam ne dañ koy tafal làmb ñi ne ci làmb na ñoom ñoo war a fexe fexe ba defaraat ko ñoom ñoo war a fexe ba lépp loo xamante ne dafay xajamal deru làmb ñu dindi ko sit internet yi ñu ngi yokk site internet yi ñu ngi liggéey site internet yi bokk nañ ci fu làmb dem tey ñoom ñoo ko fa yóbbu ndax tey euh, day am làmb ju mag ju am ngay seetaan ci benn site gis ñu def ko direct ngay seetaan lépp loo bëgg ci télé danga koy am ci site internet yi kon ñu leen di jaajëfal bu baax a baax a baax a baax a baax fépp fu waay mën a nekk ci àdduna rek ñu ngi lay jaajëfal di am kontante bu baax a baax a baax bàyyi ji li ngeen ci àndaloon ñu leen di jaajëfal di leen tàggoo ci tàggoo bi nga xamante ni moo dul tàqalikoo di jaajëfalaat bu baax a baax a baax aadama ak kàggu sama ñaari xarit yooyu nga xamante ni macha allah ñu ngi liggéey liggéey bu am solo di leen jaajëfalaat bu baax a baax a baax di leen tàggoo ci tàggoo bi nga xamante ni moo dul tàqalikoo ba ëllëg incha allah ci beneen xew-xewu làmb jër ngeen jëf